Diassy Peulh ak Yékini Diassy Peulh moo ñu wan gannaaw Yékini moo ñu wan kanam. waaye ci man combat bi mu doon combat boo xamante ne Diassy Peulh moo ñu wan kanam ah. l'expérience face à la jeunesse Diassy Peulh moo ñu wan gannaaw Yékini moo ñu wan kanam. waaye gis nañ ne Diassy Peulh moo gën a taxaw ci combat i jimaan buñ jàppande ba kii dina ko daan jaa Peulh moo gën a nekk xale moo gën a nekk xale waaye Yékini mhm. màggatum kosor kosor la. te mënoon lu ne. waaye pied ba mu na leen ni ko tegee nii kii bu ko bu ko jàppee rek combat bi dina gaaw ji jiimaan. parce kan? que nga ñoom ñaar mos na ñu ah ñoom ñaar mos na ñoo daje. mais Diassy Peulh moo ndax nee ko yow da ngay rasu. non wax na parce que parce que wax na dina am avertissement dina am avertissement ci kaw ya dina am ci avertissement waaw dina am avertissement. ah. yëkkati ah, dafa dox yëkkati dafa dox ci kawam. waaw doxin dafa dox ci kawam jaasi për rekile dafa mel ni jaasi për ñemewu ko na jiimaan. non ñime ne ko sax waaye dafa ndànk jàppoon nañu. waaw lii la jaasi pël bëggoon lii la jaasi pël bëggoon gis nga gis ba baaxul mu ngi koy mboot mu ngi koy ba baaxul dugal na ko caxabal dugal na ko caxabal mboot na ko daan na ko jaasi pël daal na ko jaasi pël daal na ko jaasi pël daan na ko. জাসি পল্ডা মেন ডান্ন করে লাই লাই ইলাল্লাহ